partem dugal ko fa waaw ba tey seen émission coowal politique naan leen dem leen abonné ji ci SBT Média cliquer seen touche notification su ko defee lépp lu fay émission bu neex rek di ngeen ko daal di am ci seen téléphone léegi nag ñu ñëw léegi ci sa base fii Médina yàgg nga milité ma bëgg a xam yow en tant que militant yàgg di politique euh, lan nga am fii comme base fii ci Médina waaw Médina fii euh, man dama fi commencé politique tuuti boobu maa ngi nekk kii parce que boobu sax suñu parti amul gu woon sax ay renouvellement ma ñëw ma nekk euh, présidente jeunesse féminine ñuy demaat renouvellement ñu renouveler ma nekk présidente encore jeunesse féminine boobu mooy bi ñu renouveler léegi xam nga jeunesse féminine étape la mais dama xës dugg si famille rek maanaam euh, jeune mi ngi yem cinq ans dama génn si famille dama génn si famille rek ñu def renouvellement présidente femme ba ma gañe ko nekk présidente Femme Médina. loolu ban année la woon. Euh, c' sunu renouvellement je pense que ne ay 2003 2004 genre noonu yooyu la daal si la ñu euh, renouveler ma nekk euh, présidente Femme Médina nekkoon parce que toujours en général góor moo doon jiite nekkoon vice secrétaire général mais secrétaire général ba su démissionné dem feneen donc man mi nekkoon sësoon si moom. maay yéeg donc Médina muy góor muy jigéen maa jiite Médina fii si URD euh, nekk sama base nag ma am encore beneen association bu nga xamante ne muy ay femmes tudd jigéenu pencum ti leen euh, ñoom ñëpp jox ma bopp ma nekk seen présidente encore jiite leen kon boog euh, muy sama base fii si Médina xam naa ne man fierté laa fi ndaxte comme li ñu naan ñaari loxoy takk seen ñaari loxoy takk. tubéy ma jël ne loolu yëpp day daal di nekk égalité comme ñaari loxo la rek en tant que jigéen may bañ góor ñu yóbbul ma ko fenn fu góor taxaw rek man ma ne naa taxaw ci wet ga ba tey ba looloo tax sax nga nekk candidate à la candidature bu mairie bu Médina waaye soxna Aïda loolu ah yaa ngi ciy bàyyi xel bu baax xam naa ne Médina fi mu jaxasoo na de ku jóg rek ne candidat la candidat yi bari nañ torop torop mais est-ce que yéen pare ngeen est-ce que yéen pare ngeen pour jàkkaarloog Bamba Fall Bamba Fall roo ci mairie bi ci ci loxoom du yomb de. waa Bamba Fall moom xam nga ren la fi nekk benn yoon bii la fi nekk am mandat. parce que turu Bamba Fall mi ngi commencé woon jóg ñu defe ne moo doon meeru Medina te fekk boobu Biram Saasum si ndem si yàlla ndeysaan yàlla na ko yàlla xaare aljana moo nekkoon euh, maire ba élection yi la mës a gagné te fekk élection yi ñamu jàkkaar la woon à l'époque euh, boobu temps APR mi ngi fi mais dañu defoon demoon dans la division euh, Seydou Gueye ministre Seydou Gueye di sama càmmiñ di sama xarit aw na la Sidi Sam aw na la di sa càmmiñ moom tamit ñoom ñëpp divisé wu ku nekk teg sa xeeru APR euh, ñu dem élection Bamba jaar si digg bi jàll loolu moo ko euh, kii loolu moo ko taxoon mu nekk maire mais actuellement nii moo tax may lancer toujours appel si Benno Bokk Yaakaar lu ñu naan c'est l'unité qui fait la force su fekkente ne booloowuñu tamit moom stratégie boobu rek dafay jéem a jaaraat candidat bu mu parce que déclarer sa candidature kenn terewu ko mais nag su ñu demee ba sa biir ñu boole candidat yëpp. xool le meilleur profil bu nga xamante ne leer na leen ne kii waa Médina bëgg nañ ko kii waa Médina sopp nañ ko suñ ko jàppalee suñ toppee si ginnaaw moom dina gañe ñu topp si ginnaaw kooku moom moo fi nekk. boole boobu ngay wax nag man moo ma xaw a jaaxal ndax beneen parti politique yi yëpp maa ngi dégg ku ci nekk yaa ngi présenté waaye Benno Bokk Yaakaar tekk tekkaaral bi ci nekk. déggaguma fenn fu ñu waxee ni kii lañ investir fii kii lañ investir fii est-ce que loolu du jur tamit pëccoxoo. mais investiture yi tolloo gu ñu si. déclaration de candidature la ñu toll yeneen yi nag ñoo xamul ñoom fu ñuy teg seen tànk yaa ngi dégg yaa ngi dégg ñee naan ñun ñooy yeewu te di yeeweeku fu ñu toll nga gis yeewu woowu bis bu nekk kenn yeeweeku kon xam nga ne ñoom si seen bopp wu yeewuñu fenn yeewuñu xëy na ñoom sax ñoom ñoo war a en profiter bi askan bi si seen i jëf si seeni jëf ak si seen i doxalin parce que ñoo fi andi lu nga xamante ne Sénégal yépp tiit Sénégal yëpp naan lii lan la parce que man euh, dama nekk féministe nekk euh, bokk euh, COSEF voilà COSEF conseil sénégalais des femmes mm-hmm. foofu laa bokk en tant que trésorière du département de Dakar donc dama gis lu nga man lu laal jigéen rek laal na ma ma gis fii sunu benn jarbaat ñu def ko jëf bu ñaaw nit yëpp a jóg muy aji saar ñëpp jóg naan waaw lii ak lii parce que daal nekk na lu ma naqari ba fii ñu toll nii parce que beneen làmb lambda bu defoon la loolu Adji Sarr heure bi ma nga sa kaso ba mais ñu ne kii diw la rek lu ko neex def. déet yow nag joxoñal yow daal du va trois tours bi amul ay jàdd jàddal jàdd jàddal ko bëgg a waxal. kon yow Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko la Ousmane Sonko Ousmane Sonko ku nekk xam na ne moom li mu def fii si Sénégal mu si fee li mu benn def def laa fi gis moom mu def ko amul leneen lu ñu mën a. toog teg fa loxo ne usmaan Sonko moo def li amul benn la fi def muy coowam ak Adji Sarr li si des da nga naan Ousmane Sonko moo fi wax lii. day jóg mu ne voilà taqal benn nit daal den am naa ay preuve est que nit ñi mës am na am na benn journaliste bu mës a lire ay preuve am amul day jiine rek euh, wane ne lii ak lii ñu kii noonu ñaar ñu ne ah ay preuve la yore ay lii mais mosuloo wane kenn preuve mosula teg dara lu concret lu nga xam ne lii am na njariñu Sénégal Aïda yaa mi daa mel nag yaa ngi tooñ ndax yow lu ma la posé question mooy Benno Bokk Yaakaar ak pëccoxoo beeg ki investiture yi nga nga yóbbu ma ba ci ba ci Ousmane lan moo ko waral yow tamit loo yow loo guuxal Ousmane Sonko guuxaluma ko dara sénégalais guuxaluma ko dara sénégalais la ndaxte da nga ne yeneen parti yi. yeneen coalition yi ma xam ne moom moomu moo nekk yeew ma ca yeew. déet mais moom dong nekku ca ca coalition. moo fay yeew déedéet ñoom ñi déedéet nga fa. Ah, macha allah yàgg ndakaar macha allah Sall ndeysaan euh, kooku ku bëgg jiboka la. Euh, maanaam jiboo daf ko jàppoon comme doomam nekkoon parent am waaye nag euh, dama gis si moom ragal gu nga xamante ne. Euh, donnu ko si jiboka dogunu ko si fenn parce que gis nga nit ki su fekkentee ne tuumaal nañ la dara wala lenn si tàng-tàng bi da nga sëgg commencé di jooy soo paree nga justifier say jooy ne lii ak lii war nañu poser question ne lii lu xew du noonu. non Khalifa Sall moom da ngeen ko Benno Bokk Yaakaar tooñ. non non rey ko politiquement. ah déedéet déedéet déedéet déedéet ah. Khalifa bañ na ko ba moom ba mu génnee weddiwul sax moom ne lii laa def. weddiwu ko de xanaa ñeneen ñi presse bi ñoo koy weddil waaye moom si boppam weddiwul bañ na ko ba bañ ko kiwee dafa ne moom du tuumaal kenn assumé du noonu ba mu génnee tamit génn na mais tey jii man lu ma ko doon digal su génnee waroon a seet beneen doxalin xool moom nu mu gën a laver honneur am du noonu xool nan la mën a génnee lu dul mu dem bokk si di naan damay ànd ku nga xamante ne Sénégal yëpp a ngi koy joxoñ jigéen ñëpp a ngi koy joxoñ nga dem toog dend ak moom naan te yow kooku yow ba ngay politique kooku politiqueul yow la nga def si politique kooku defu ko fa. est-ce que nekkul kooku dafa yóbbu seen fit wax dëgg yàlla kooku ba mu fiy génn ba léegi lépp lu muy wax. ay firnde la ci indi moom lépp lu muy def lu concret la mais lu tax yéen Benno Bokk Yaakaar ku jóg rek ne usmaan Sonko Ousmane Sonko ba xalifa Sall moom tamit nga bëgg koo sànniwaale foofu xeer mais moom ak ni mu mën di demee rek ñoom def nañ lu concret def nañ seen coalition xëy na politique nag mënul ñàkk coow mais yéen ba léegi kenn déggagu leen ci dara dara yéen daal yéen a ngi tekkaaral bëgg fa coxoo xaw ma nu demee noonu. Euh, ñoom mosuñu def lu concret te xamuñu sax luy lu concret ñoom. neel kay def nañu ay euh, comme genre marchand d'illusion yooyu rek si yooyu non non non pas ban la yow yow gisoo fi benn pas gisoo lenn lu ñu teg la ñu tegoon noonu gis nga ba ñu ne yeewi la nit ñay yeeweeku sa biir coalition ba kon boog xam nga gis nga dëgg rek moo fa yeeweeku ah yow yow nu mu tuddati man ñoom du def seen promotion di leen di tudd ki noonu ñoom xam nañu seen bopp yow kay defal nga leen promotion ndax yow ba ma la laajee ci mairie bi fii laaj la ci ci Médina nga ma yóbbu ca ca Ousmane Sonko yaa leen defal promotion déedéet maa ma ne yeneen coalition yi looloo tax sax ma tudd kooku waaye mairie Médina fii suñu dellu si fii si mairie Médina parce que kooku sax duma bëgg a tardé si moom parce que dama doon wax sama point de vue en tant que jigéen te loolu mu naqari ma woon ma tenir ko à cœur mooy que ne justice bi ñuy laaj pour aji saar looloo tax ma bërëxal si loolu du noonu mais damay wax ne mairie Médina fii euh, maire bu njëkk ba Pa Ahmed Diène la ndem si yàlla Pa Ahmed Diène muy ku baax toppa si eh, Pape Momar Diop di sama càmmiñ Biram Saasum si ñëw eh, Bamba Fall ñëw maanaam ay góor rek ay góor rek te toujours le problème et la léegi looloo tax man en tant que jigéen en tant que femme leader man ay Gueye mooy wax waa tàllal sama loxo waa Bennoo Bokk Yaakaar que ñu changé affaire yi parce que fi mu toll nii suñu càmmiñ euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba le messi maa ngi koy nuyu moom tamit nekk moom tamit suñu càmmiñ dégg naa ko mu wax candidature am dégg Seydou Gueye tamit comme ni ma ko waxee woon rek dootuma mën a présenté waat Seydou Gueye sama xarit euh, moom tam présenté candidature am ak ñeneen ak ñeneen ñu nga xamante ne présenté nañ seen candidature fii si Médina mais ay góor rek ngay dégg ma ne leen nag il faut que yëfi ñu changé ko parce que dañoo toll si étape parité suñu jëlee benn maire bu góor doxalul ñu seet benn maire bu jigéen seet yëf nu muy gën a kiiwee ah mais su fekkente ne dañ Sénégal kii am na ndombo tànk rek nañ leen ko jiital. kii am na ndomba tànk nañ leen ko jiital kon ñun fan fan la ñu jëm ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy les acteur de développement ñun ñuy bokk ci kii ñun ñuy di fal parce que Sénégal nag président Macky Sall moo gën a xam ne jigéen ñee ko fal ba mu faloo la xam ne jigéen ñee ko fal dafa jug taxaw mu ne sama quinquennat bi de je je le dédie aux femmes léegi nag loolu laa koy rappeler président Macky Sall comme kenk naa boobu femmes yi nga ko dédiyee ñun jigéen ñi ñoo ngi nii tey soxla nañu ay poste maire ay adjoint jigéen ñi la su ñu demee ci service yi ñu fa gën a xarañ jigéen ñi la il est temps que ñu jéem a changer la donne jël jigéen ñi jox jox leen seeni responsabilité ñu jéem a nekk au devant de la scène su boobaa Sénégal émergent bii mu bëgg nii daf koy am ndaxte moom kat jàmbaar la président Macky Sall jàmbaar la ku gis Sénégal euh, de avant deux 2012 ak Sénégal tey jii wax dëgg yàlla soo ko gërëmul euh, leneen loo def rek yàq nga ko. waa ba tey damay taxaw ba léegi ci Médina ndax candidat daa candidat nga ci maire yi mais Bamba Fall gis naa ne waa Médina jox nañ ko bopp te réalisation yi mu def Médina bëri na est-ce que fokkati loxo kii bi ci nguur ki ci kiyam dina yomb ci loxoom mairie bi est-ce que fokkati ko ci loxo yi Bamba Fall est-ce que dina leen yomb. waa Bamba Fall ñenn si Médina ñoo ko fal xam nga élection maire dangay dem soo compter sa suffrage soo pëlee benn nit sax raw nga ko kon boog ñenn ci Medina ñoom ñoo ko fal te xam naa ne ña faloon ña sa ëpp ña ngay réccu lu tax ñu fal Bamba Fall. lu tax lu ko waral lu tax nga ne ñu ngi koy réccu. parce que fii bis bu nekk ngay gis marché yi fi nekk ni xale yi si euh, nu mu tuddati soo ñëwee temps yi rek yaa ngi gis jeune Medina yëpp a ngi jóg ah di xeex Medina amatul benn espace. imaginez que ne fu toll ne Médina douche dafa amoon dañ ko defaroon ba mu baax ay douche publique parce que fi mu toll ni gis nga jamono naqari na ba nga xamante ne da ngay gis ku dox si mbedd bi saf saw soo duggee benn kër dañ la naan duñ la woolu daal moo taxoon Médina am ay douche publique ak yooyu mais douche publique yooyu yëpp jaay na ko yëpp raxas na ko yi mu def ay kër yi mu def ay kii noonu xam nga loolu am na yu bari yu nga xamante ne naqari nañu am ay dossiers yu nga xamante ne waa Médina ñoo ngi si di ko jooy guddeeg bëccëg parce que gis nga dëkk soo fa nekkee nga nekk maire xam naa ne xëy na du mën a liggéeyul du mën a liggéeyul ndaxte soo xoolee tali yeeg mbedd yi pavage yeeg yooyu du mën a liggéeyul parce que man républicain laa républicaine laa comme suñu secretaire général Djibo Leyti Ka ni mu ko doon defee dafa ne soo gisee lu baax nanga ko wax ñun noonu la ñuy politiquer mais nag la mu def lu baax su dee benn mën naa ne mën nañu compter fukk yu nga xamante ne safaan wala yu naqari waa Medina yu jaral ñun ñii waa Medina ñu jële ko fi te bëgg nañu ànd ñun ak waa Bennoo Bokk Yaakaar incha allah ba élection locale yi maire bay jëli ji Medina nekk maireu Bennoo Bokk Yaakaar dëgg la émission bi nag li ci des bëriwul waaye mënuñoo jeexal mukk te waxuñu tuuti ci actualité ma bëggoon nga indi sa xalaat ci poli problème mu visa yi ngay dégg ak say naataango yi nga xam ne ñoo nekk bennoo bokk yaakaar nekk ay député ñu leen ji tudd ci wàllu woowu loolu noo ko gisee. Euh, man xam nga man affaire justice nag dama see aayul waaye lépp lu ma dégg man loolu rafetul dama naan lii rafetul waa parce que yow député nga lii moo tax ñu fal la yemal si sa rôle député. leneen lu nga xamante ne soo wàccee lu ñaan soo wàccee sa ànd leneen loo fa toj yaaw yaa ko toj président Macky Sall li mu wax ne du protéger kenn donc loolu man am naa si confiance maa ngi déglu loolu mais c'est problème mu visa yi dafa am ñu nga xamante ne nag dañ ne fàng fàngaaral de ñu wane leen. comme ñan kilifa. mi nga xamante ne moo nekkoon. yow nag dangaa mën a tooñ yow ma lay laaj bennoo bokk lu tax man sax man même di yow dong presque képp ku nekk bennoo bokk yaakaar rek bu ñu waxee ci ci problème mu visa yi de fi mu ne nii ñaar ñële nga xam ne ay député lañ nga xam ne ñoo yor ndombal tànk ci askan wi jox leen ndombal tànk buñ ci laalee rek dañuy teg loolu yépp jëm ci kilifa te kilifa benn citoyen la rek kuy xeexal askan wi. loolu wax naa ko de wax naa ne loolu rafetluwuma ko ba nga ne sa naataango ña nekk benn bokk yaakaar dama la ne loolu rafetluwuma ko seen rôle lu man wax naa si lu ma xalaat mais dama ne nag ñu bañ ko yemale noonu parce que askan bi lañu nekk du ñuy protéger ñi nga xamante ne tamit nee nañu ñoom ay ñoom ñooy waa yanamar ñoom ñooy ñun ñooy waa lii nii parce que gi nga Sénégal soo bëggee nekk yenn saa yi yenn escroc yi dama koy wax ci kaw de nga bëgg a def kii nii jógal nga ne activiste nga parce que soo nekkee si kaw soo waxee ñu ne woy woy askan bi la fi nekkee soo defee sa loxoori kii ne suñu loolu feeñee rek ñeneen ñu jóg déedéet déedéet bàyyi leen ko dañ ko bëgg a taqal nguur gee ko a taqal sa nga si en di def naka sadul noonu nu mu la neexee parce que gis nga lii dafa feej rek mais li may bañ mooy ñu jël mbir mi yemale ko kaaw kilifa ak kaaw ñaari député yi c'est diamétralement opposé mais mbir mi ñoom dañoo jël bëgg a mbubboo loolu bëgg a suul jëf jële a jël bu kilifa ak bu Simon bëgg koo yëkkati ci kaw lu tax loolu waaw que basu Simon basu kilifa moo njëkk a feeñ euh, tuuti politique yi sax seetaan ko si euh, réseau sociaux yi du noonu ba su kilifa njëkk feeñ parce que député yi fan yi la dañuy jël lenn lu nga xamante ne gis nga nañu yemale sénégalais yëpp gis nga pouvoir day jeex ña nekk pouvoir tey demee mën nañu nekk opposition ña nekkoon opposition daaw daawaati ji bu yàgg ba ñoo nekk tey au pouvoir kon boog bu ñu ñëw naan yow soo nekkee opposition rek yow loo def ñu ne alhamdulilah ah opposition la nekk daal di lay peinture defaral la ba nga baax déedéet loolu day yàq Sénégal nañ leen yemale ñëpp. fi mu toll nii gis nga benn député su sëqatee dañuy bëgg euh, opposition ba lépp lu ñu defoon ñu maase la ko ñu muur ko ba mu baax daal di ne ñëw leen yëkkati député ba loolu day yàq day yàq yëfu Sénégal député bi c'est citoyen Sénégal mais la njëkk a feeñ bu ñu suul euh, yëfu ñoom kilifa yooyu ndax euh, am na député bu def am na député bu def lii wala am na ay député yu ñu tudd loolu basam boobu moo war a gën a leer parce que nag moom moo doon wax fii la fi génn di ŋàññi kilifa diine yi seen tekk-tekkaaral fii la fi génn di ŋàññi askan bi naan askan bi ba pare di si teg ay kàddu yu ñaaw ndax askan bi ànduñoo moom ndax askan bi lii askan bi lii nekk un donneur de leçon gisuma fi député yi nekk fi ay donneur de leçon génn si réseaux sociaux yeeg yooyu ak kii moom nag mi nekkoon donneur de leçon tey jii moo tombé si biir piège am kon boog loolu tamit bu ñu ko euh, suul ndax am na député yu def loolu député yu mën a def loolu tamit yoon dina def seen liggéey ba fu mu yem neex waaw dëgg la léegi ñun nag li ñu cërali woon ci waxtu malheureusement jeex na bëggoon nañ ñu duggaat ci yeneen point waaye malheureusement léegi mu bëgg rek nga jox ma sa dernier moom waaw sama dernier mot euh, euh, di euh, remercier doomu Djiboka yi nekk URD yëpp nag waaw ñooñu il faut que duma ñàkk di leen di lim ñi nga xamante ne mënuma lim sax mais dama si ràññeet la ku mel ne Lamine Sow Moussa Diallo Mamadou seen pikin responsable pikin dégg nga ñëw si euh, Assane Sow jigéen ñi ñoom Binta Kane ku lim da ngay jum doomu ju bokk yëpp nag ndaxte xam naa dinañ ma mere sax dinga dégg ndax limo ki limoo ki mais dafay am ñu nga xamante ne foo jaar di nga leen tudd Omar lii nga fële euh, parcelle ak ñooñoog ñëpp nekk ay doomu ju bokk pire bëgg yëkkati URD bëgg a yëkkati parce que luñ ju bokk ne woon URD xalu ndéef la ku nekk xam na xalu ndéef euh, day gëmma rek mais du fay xal boobu nag ñun doomu Djiba Kaye ñoo ko bëgg a ba mu jóg si kaw ba ñëpp xam ne URD jógaat na di leen remercier di remercier euh, waa Bennoo Bokk Yaakaar Médina yëpp Bennoo Bokk Yaakaar ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp da leen ña gën a soññaat rek ne nañu doonaat benn yaakaar bi dina yaakaar baa ngi fi kon bokk suñ nee bennoo rek bennoo jeexal na ay wax bu ñu ko jéem a diviser te képp ku ko jéem a tas xam naa ne président Macky Sall du seetaan loolu ambition politique nag ku nekk am na ko ku nekk am na ambition politique soo dul politique soo amul ambition bàyyi ko man sama ambition mooy diriger mairie Médina sama ambition nekk na jiitu na yeneen yooyu lu ko gën a kawe kon boog euh, su boobaa daal nañu ko gën a rafetal pour ñu mën a am victoire si locales yi loolu mooy dooleel président Macky Sall loolu mooy euh, dooleel Sénégal loolu waaw kay jërëjëf euh, Aida Gueye ñu fekk si ko fii ci Medina mu nekkoon seen émission coowal politique xanaa ñuy jox téléspectateurs yeeg internautes yi rek incha allah ci beneen émission bu soobee suñu borom